campagne électorale ñu toll ci juróom fan bi caravane bi nga xamante ne mooy njiitu APR bu nekk foofee ci Mbao nag di Niokh Baye wër quartier bi ni tey jilee fële ci njóobeen nag nga xam ne mooy fi njëkk fu ñu amal doxub nemmeeku militant yi nag nga xamante ni ñu ngi yore seeni râteau ak pelle waaye tamit ay bale ñoom daal rafetlu nañ rek ndimbal gi nga xamante nii ki nga xamante mooy directeur Petite Enfance jox na leen ko. sama xol seet na lool man ak délégation bi ma àndal xam nañ ne sagal ngeen ñu yëg ngeen ñu te seen xol sedd na si ñun jëppuwu leen ñu la may yokk mooy sama ñëw tey sax mënoon a ñàkk ndax xam ngeen ne gëju ma fi géjuma fi sama mbooloo gëju fi

di leen déglu ñépp góor ak jigéen di leen jàppali seen liggéey bu leen lu bu leen bàyyi ñu weet noonu nag la caravane bi di wéyalee fii nag ki nga xamante ne mooy njiitu APR bi file mu ngi dellu di ñaax waaye tamit di soññee ñu nga xamante ñooy militant yi ngir rek bu bésu vote ba jotee ñu wane seen i mënin te bañ ñëwee fii tamit wax dëgg yàlla macha allah gis nañ fi lu dal suñu xel moo tax ñu leen di ñaax rek ne lii nga xam ne mooy élection yi dafa nekk lu am solo ndax président Macky Sall ñun noo ko faloon jox ko réew mi ne ko bugg nga jëmal ñu si yoonu yokkute waaye nag nit doo joxe bopp rocci làmmiñ assemblée nationale mooy làmmiñ bi bopp bi mooy président Macky Sall te nit nag su dee am nga yaakaar si liggéeyam yaakaar naa ne da nga war a ànd ak moom ci li nga xam ne mooy rafetal liggéeyam moo koy dooleel nga jàppale ko si. gannaaw bu ñu jógee foofu la nag wutal la ñu neen waa mbaar mi foofee nag kàddu gi tamit benn la ki nga xamante ne mooy bàyyi Mass mi nga xamante moo wax su turu nappkat yi moom daal rafetlu na rek taxawaay ñu ko bàyyi foofu la ci gox boobee gannaaw bi nga xamante ne si jot na leen a jox lu tollook ñeent fukki junne ngir rek ñu mën a tabax seen mbaar mile. li ngeen ñu defal. Je seen fay fal leen fayu leen leen carte fayu leen rek lañu am pour mu fayal ñu parce que rëy na suñu beut si suñu xol biñu xamanté ahli trois mois bi muy def li la si wax deuxième bi moy jëf lolu rek di mandargal sax ay jëf yu rafet yi nga xamante ni njiitu parti bi la amal na ko ci gox bi rawatina ci bisub tey bile gannaaw bu ñu demee fële ci Lansar sax madame Diouf ñu koy wooyee Ndeye Marie moom it wane na fa boppam gannaaw bu mu jaglee lu toll fanweeri junne jigéen ñi nekk foofee. ñoxa bàyyi ñu ngi lay nuyu ak ñi nga àndal ñëpp bàyyiwuñu kenn ku lim ngay juum ñu ngi lay firndeel ne ñu ngi ci sa ginnaaw ndax nit ki boo jàkkaarloo moom jàng ko xool ko xoolaat ko di nga xam fidèle na wala fidèlul affaire yi politique dafa doy waar am na ñoo xam ne ñii seen bopp moo leen tax di politique wala seen néegub ndey wala seen néegub baay mais njoxo baay moom dafa ñëw rek bëgguñu te bëgg di nga xam ne bëgg yëpp moo koy fay nekk nañ si sa ginnaaw te duñu dellu ginnaaw ni nga fidale nu ko raw la ñuy fidale si sa ginnaaw ba yombal fi am dootuñu bàyyi. campagne bi woy guddi gi jot waaye terewul caravane bi nag moom mu ngay wuti wutali fële di ñaari guy foofee nag ci kër ki nga xamante mooy Adja Fatou Cissé. li fa gën a fës mooy rek xolu bu tooy bu Aziz Diouf mi nga xamante ne mooy daanaka ci kilifa kër gi la bokk gannaaw loolu nag ki nga xamante ne mooy njiitu mouvement bi ci mbaaw nekk ci ginnaaw ñoo ko Baye nag moom daal dinay rek def bilangu bés bile di bésu campagne ci juróomeeli fan bi gannaaw ba ñu ko dooree ba léegi nga xam ne mébitam rek mooy fexe ba Macky Sall am majorité présidentielle ci assemblée nationale